ngir xeex ñàkkum liggéey fii ci Sénégal tax na ba l'ONG bii di People Power Inclusion amaloon ab lalu ñaari fan fii ci lycée Seydina bo Limaamu Laay bu Géejawaay section professionnelle li ko tax a jug boobule nag mooy fexe ba jox ndaw yi ay matukaay yu nu mën a liggéeyee gannaaw bu ñu noppee ci seen formation bi ki xam la loolu nag moom moo di monsieur Bawo di chef de projet. donc projet bi nag li ko tax a jóg moo di gis nañ ne ci Sénégal xëyu ndaw ñi. dafa nekk dafa am solo boo xam ne nii képp koo xam ne nii yaa ngi yëngatu ci secteur boobu war nga cee jàpp donc ñu ne ñun daal li nga xam ne nii gis nañ ko moo de ñi nga xam ne nii am na nañuy diplôme génne ci formation professionnelle et technique insertion bi xëy na amna fum fu mu donc ñu daal di jóg naan ne ñun kat nañ dem ci euh, formation professionnelle bi xol naka lañuy jappalé ministère bi ak les établissements ñom ñu mëna assurer insertion bi nga xamné ni dana may bép jeune mu waa mu xool naka la mëna créer emploi bopam créer emploi bopam ci filière bi nga xamné ni mom la jang am ci ay diplôme pour que

ëllëg. donc loolu moo taxoon a jóg projet bi moo ñu indi woon fii tey nag ci activité bi di nekk formation bi njëkk ci wàllu entrepreneuriat nga xam ne nii ça permet surtout pour jeunes yi ku si nekk ñu mën na tàggat tàggat la ci wàllu naka la ñuy yore entreprise tàggat la ci naka la ñuy tëggee projet tàggat la aussi ci ban yoon ngay jaar pour xam li ngay soxla dëgg ci sa wàllu projet ak naka ngay démarrer donc moo ñu taxoon a jóg fii mais mu nekk action bi njëkk duñu yam ci foofu parce que da fay nek da fa nek dispositif bo xamné ni dana durer lu mat 4 à 5 mois 5 mois yo xamné ni nii danañ ci accompagner jeune bu ci nek bu bu weesoo formation bi dana am ay rendez-vous coaching yo xamné ni jeune bu moy jakarlo ak coach yi nek ci biir établissement yi tan former len ci tàggat leen ci walu incubation ñooñu war len mën jappalé jàppale bu ñu leen jàppalee nag ñuy am ay rendez-vous yo xamné ne dañuy toog di liggéey ci patch bu nek ci ci seen projet bu ko defee jeune bi ci boppam nag euh, tàggat bi du coach bi moo koy bind jeune bi mooy dem wuti information yi bind li nga xam ne nii remplir euh, outil yi ñu koy jox bu remplir rek coach bi bu ñëwee coach bi nag moo koy orienté di ko conseiller di ko corriger ba nga xam ne nii liggéey bi mat na ñu saago jàll ci beneen pàcc ba à la fin nag ci cëppaandaw la ñu ne ah duñ leen former accompagner leen rek bàyyi dañuy teg que manam ay bourse yo xamné ni en tout cas une sélection de ces jeunes là ñom war nañ ci mëna am pour permettre leen ñu am équipement yi nga xamné ni nii bu mënta am léppit mu ñu am ci ben patch bo xamné ne dana leen mëna permettre ñu mëna démarrer sen activité. bénéficiaire bi di yaré Lo mi ngi rafetlu bi les projets ndax dina am ndariñ ci sen cursus professionnel. waaw yëg-yëg bi ñu am fi ni moy ni yok gi ñu yok ci lu ndaw li nga xamné amon nañ ko ci lu ñu xamone ak si suñu bëgg-bëgg bi nga xam ne moom lañ fi ñawaale muy bëgg-bëggu nekk entrepreneur bëgg-bëgg boobu war nañ ñu ni fii ci tàggat bi ñu tàggat yoon bi ñu war a jël ngeen mun koo jot war nañ ñu it li nu war xam balaa ñuy dugg ci mbir mi te loolu mu nekk lu am solo loo xam ni ku ci nekk ci ñun euh, gis na ci mbégte gis na ci euh, doy doylu goo xam ni wóor nañu ni ci nii ñuy ànd ak ñun li ñu bëgg dinañ ko mën a réaliser ndax may nañ ñu euh, moyens yi nga xam ne moom la ñuy war a utiliser pour àgg ci teg nañ ñu it ci yoon bi nga xam ne moom lañu ñu war a tegoo ngir àgg ci kon ñu ngi sant di gërëm bu baax euh, ñi nga xam ni ñoo taxawal lii di leen euh, jaajëfal. gannaaw loolu responsable cellule insertion ci lycée Limamoulaye di Mamadou Ndiaye mi ngi xam la rek ne ndaw yi. ci ñeenti fan yi liggéey nañu xale yi euh, ci formation bu ñu tuddee entrepreneuriat ak étude de marché bon liggéey boo xamante ni vraiment tax na xale yi gën a xam exactement lan moo leen di xaar par rapport ak création d' entreprise lan moo leen di xaar ak euh, wut liggéey ci.

avec leur euh, chef de projet, M. Bao, euh, qui en fait euh, n'ont ménagé aucun effort. Parce que l'implément de moyen pour que la formation puisse réussir, non seulement, mais nous équipons également sur une salle d'incubation, bien que les gens peuvent venir di fa mu nekk jumtuwaay bu mucc ayib di fa dinañ fa mën di ñëw di fa liggéey qui sont ay projet donc Lolo aussi bu de ni partenaire defal na la C'est parce que day permettre à l'Union ñu indépendance par rapport à leur euh, leur projet du monde de def ay recherche di également di am temps pour di lier par rapport à ce projet Le projet jàppale ma bi mi ngi intéressé fukki école ak qui ci au Sénégal financé de la délégation nationale Union européenne ànd l'ambassade du Pays-Bas fas yéene Ndawi. ndaw